seetal rek bu fekkee ne éducation amoon na ñëpp jóg kon nekk ci kanamu procureur yi dana wàññi ko yu baree bare même mbalit mii ci bu éducation amoon set gi day gën a am éducation bu amoon kon sax du ñu soxla làmp yu tàkk yu ñuy lëjal ndax ñëpp dañuy dox ci leer seen xol mooy leer kon dañu soxla ak la nëmb la ak leer kon loolu moo taxoon ñu jël éducation bi nga xamante ni mooy éducation tariqa tijaniya ndax base éducation tariqa tijaniya mi ngi jóge ci ñaar bu jëkk bi mooy nga dem régler jàmm ak képp ko séqal ki la tooñ fexeel ba mu kontaan ki la tooñ fexeel ba mu kontaan sa yoon nekkatul ci tooñ loolu mooy première base te lii boo demee ci ifhamul munkiril jaani bu cheikhul haj malik si radiallahu taala da nga ci fekk nga fexe ba irdaul xasmi ظالما كان او مظلوما يوم بولنا كوني تك يون موكو مان فخه با نيغا خولول نيب نغا رك لا سا اك نيوم بيتي ديس موي باني جيل اكو كين كو جيل اك ديلوكو باني جيرتي اكو كين باني توغنتي باسكو توغ موي جيل اكو نيت باتي سيركولاسيون بي جيل سا جيل سا ليميير نيكو تاي نيت كي يون وي اك اكلا جيل سيركولاسيون بي نغا فخه با جيل جارلو فيغا ورون جار اكلا نغا بك نيت اك tardeel ko ak yooyu yëpp nag lañ doon wax naan éducation bu amee rek nit ki day dox ci day dox dox bu yiw day wax wax ju yiw day def def yiw du tooñ kenn te ko ko troisième bi mooy du gannaaw du tooñ ku ko tooñit mu baal ko mu baal ko ko defee yooyu nga xamante ni moo doon point yi kilifa yi nga xamante ni ñoo ngi ñëw ki te ki ko baaxoo def mooy xalif général de Tijane yal na ko yàlla may wér ki ak ànd ak mbokkam alxaaji Ousmane Ngom bi nga xam ne mooy xalifa mam alxaaji Rawane radiyallahu taala anhu ñoo daan waxtaane ci loolu waxtaan koo xam ne bu ñu paree lay tëj waxtaan wa mooy euh, seen rakk seen xarit sëñ Babacar bu Mawlaay Cheikh El Hadj Abdoul Aziz si yooyu nga xam ne synthèse bi nga xam ne ñoom ñoo koy def euh, gannaaw bu waxtaan yooyu matee yépp mi ngi aju ci nit ki mu jub te loolu yaakaar na moom la préfet waxoon ni bu yàlla dogalee gàmmu gi am waxtaan am la cay ruuse te mooy nit ñi jub yàlla na ko ci yàlla def li nga xam ne itamit monsieur le maire Babacar Diop wax na ko ci dëkk ñaanam ñaan maam Ibrahima googu mu indi ko sotti ko ci Thiès yal na am rabbi rabbi ijal hada al Thiès aminan dëkk bu amee sécurité rek liggéey yomb yal na ko fi yàlla def ba nga xamante ni police dana noppaliku gendarme gendarmerie Euh, ñu noppaliku préfet am jàmm ku mu neex nga dox guddi bu la neexee dox bëccëg kenn du nax kenn kenn du tooñ kenn loolu yàlla mën na ko dogal mm. ci sa jotaay bii nga xam ni noo ngi ñaan bala yàgg nga yëg ni da ngay yokk di yokk di yokk euh, Maurice Gueye euh, maire Rufisque chrétien la woon dafa sonnoon lool ci daara ja ci Mbaye alxaji Mbaye Bassine bis moom alxaji Rawaan dem fa Ah, daja faat maam alxaaji Mor Xujja si mu mu mu nettali leen Maurice li muy daj ci ñoom ci daara ji ñu ko nag Maurice nag mu fi indi ndekki li day sàkku ñaan nag waaye bokkul ci nun saaba veut dire que du jullit déggal mag ñi li ñu yaatale woon mu ne waaye moom wax na wax soxlaam rek dootul seet na yooyu yooyu ñun ñoo koy seet nun parce que dañu tardé mu ne na wax soxlaam rek Maurice ñëw ah ni ko sama sama nijaay ñoom nee ñu nga wax sa soxla mu ne alors man sama soxla lenn rekk la mooy dund ci nguuru dee ci góoxu waaye seetal ba biñ koy tàbbal ci bàmmeel ngi nekk maire honoraire ñaan googu nag lañuy àbb suñu borom ci làmmiñ ñu ñu tedd ñooñu ñu sotti ko ci sa jëmm ji muy rogaatal ba ci say sët ba ci say sëtër ji ngay falu di falu di falu ba fa falu yam ak mbooleem ñi ngi ko séqal euh, defal ko sa mbokk mii nga xam ne yéen a ànd di déggoo ci liggéey muy le gouverneur nga xam ne moom itam sunu doomu baay la sunu doomu bajjan la ñuy ñaan moom itam yàlla defal ko loolu ci njabootam di ko ñaan ci mbooleem ñi nga séqal liggéey bi chef de service yi ak ñi lay jàppale sànq wax naa ma yoro ni ko sa coono bi xam nga lu ko waral ñaar rek yaakaar yu ñu am ni li ñu lay doxloo di nga ko dox dox bu rafet ak wóolu gi ñu la wóolu moom laa la doon waxaat sànq loolu nag noonu ñaan yàlla na yokku ma yor chef de service yi nag ñoo ngi leen di gërëm doy maanaam wuy si gi rek doyoon nanu xaaji Amadou wax na léegi ni préfet mënoon na woote leen dañu dañuy gàmmu nangam ak nangam waaye daje gi baax na ndax soxna si wax na fi tabarkalaw orientation yu rëy rëy ci wàllu jàmm ci wàllu mbooloo te loolu bu doon téléphone rek duñ ko am li nga xam ni jox leen ay pexe jox leen kattan ba nga xam ne ndox mi dafay woyof toy ci ñi nga xam ne ñoo koy jënd gën a woyof nii mu nekk noonu tam yàlla def ko ci courant bi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di ñaan nag Thiès bu yàlla dogalee mu nekk terme de référence pour jub pour baax pour naataange pour déggoo ba ñépp ànd ci noonu yàlla na tas ci Sénégal ba Sénégal mel noonu mu tasaat ci Afrique na fii tàmbali liggéey yàlla na yëg ni yokku na yàlla bu kenn am tolof tolof ci liggéeyam dañ leen yàlla defal sutura defal leen teranga defal leen barke te musal leen doon wax rek ni xam naa ñaar muy Senelec ak euh, Sen'Eau yal na leen yàlla dimbali pour jub am yal ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bu baax te kontaan nañu ñoo kontaan nañu euh, te itam maa ngi doon wax ci madame Ka madame Ka Pall la jëkkoon nekk man maa ngi nekk porte parole famille mam El Hadj Rawane Ngom radiyallahu taala anhu bi mu fay nekkee gisewuñu akañ benn yoon benn yoon la ñu gisee mais heure bu ma fa demee ñu wax mu ay taxawaayam ba ba la ñu koy.